leen laajee ñu wax dëgg dangeen leen dóor waaye bi ngeen leen dóoree nag dañoo fen wax boobu day wone ne kon la ñu a wax moo di dëgg ñoom armée bi lañu àndal waaye ànduñu woon ak njëgg ma foofu nag la yonent bi sallallahu alayhi wa ca tey ga mu laaj leen ne leen naka seen mbir naka mbiru waa Quraysh Abu Jahlin ak ñi mu àndal ñaari xale yooyu wax ko ne ko ñoom daal sorewuñ leen yegg si nañu daanaka ñoo ñu yónni woon wante bis bu nekk ñoom danañu rey fukki gëléem tey bu ëllëgee ñu rey juróom-ñeent ci xam-xam ci wàllu calcul ak ci wàllu ak ñaw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam booleeg yàlla defal xam na moom yonent bi ci rey googu ñuy rey fukki gëléem wala juróom-ñeenti gëléem par nekk seen dund ci la xame ne kon mbooloo mi Abu Jahlin àndal junni soldaar la wala juróom-ñeenti téeméeri soldaar mu mel ni kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamna lolu bu bax gannaaw bam ko xamé itam jàpp na njamuram nopi ndax xamna ni itam deug dëgg yàlla yéefiri ñoo ëpp lim wante ko ànd ak yàlla itam kenn du la mënal dara ndax kam min fi'atin qalilatin غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين moo tax bi ñu ñëwee ñoom jullit ñi ba yegg si Badar ñu ngi wàcc ci barab bu nga xam ne suuf sa def di suufu beeñ jullit ñi amuñu ndox ñu ci bari commencé yokkat ndax coono bi bari na te itam ñu ci bari yàggaguñu ci lislaam seen pas-pas dëgëragul xëy na muhajirun yi nga xam ne ñoom sonaloon nañ leen màkk ñi gàddaay dem Éthiopie am nañ formation bu dëgër boo xam ne mbir mi daanaka diisul ci ñoom waaye nag ñi nga xam ne yàggaguñ ci lool xawoon nañu daal di jàmbat coono bu metti ak ñàkk ndox ci waxtu woowule ak ndox bu metti bi neena fofu nak ci la len yalla roofee ak ngëmbentu ñom ñep ñu commencé di nelaw nelaw yu xoot lolu itam sirru la bu yalla def ndax nit bu sonné su nelawé noppul nelaw gogu tax seen coono lu ci bari wàññeeku na ci biir nelaw li ci biir nelaw yi ci la yalla wacce ben taw bu yalla wàccee taw bi ñu naan ca ndox ma ba man ni ñi tilimoon ñëpp sangu ca ña amee woon janaaba itam sangu ca ña bëggoon a jàpp itam jàppi ca suufu beñ ci doon dox te moo di suuf su nooy si dëgër ba nekkatul gannuus bu leen di sonal léegi nag mu daldi neex lool ci dox foofu nag la jullit ñi amee chance jiitu gaa ñi nag badar yéeféer yi nag mbir mi metti ci ñoom ndax ni taw bi nekkee xéewal ci jullit ñi noonu la nekkee musiba ci yéeféer ya ndax dafa ngirool seen yoon ya ba seen ndox yombul woon moo tax jullit ñi jiitu leen badar moo tax moom la yàlla di wax ci alquran ne di won yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko maa la jegoon ñaari kuréel yi ne ko wa iz ya'idukum allah ihda at-ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduuna أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويقطع دابر الكافرين مودين يالا نمنا فدين دقو yéeféer yi nga xamante ni weddi nañu ko nam na itam yëkkati kàddu kàddoom gi yàlla itam mu ngi wax ci alquran ni nelaw gi leen róofu ak taw bi mu wàcc xéewal la gu bawoo ci moom mu wax ci alquran ni إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام أي بوبو مو جلد مني يلا تبقم موم لا صوب مو واتي توبي مو دي خيول تي نيوم بانت نك دي مصيبه بو ري تي يفريه موتاخ mu bi nga xamante ni agsi nanu badar xubaab ibnu mundir saxaabi la woon bu rafet xalaat yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw na ba ci benn barab mu ne nanu campé foofu dal fa waaye xubaab ibnu mundir daf ko laaj ne ko yow yonent yàlla bi ndax fii nga wax pour ñu dal fii ndigal la bu jóge ci yàlla am huwa am huwa rëyu wal xarbu wal makida mu ne ko ndigal la bu jóge ci yàlla wala sa xalaat la wala stratégie de guerre la yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko bal huwa rëyu wal xarbu wal makida ne ko sama xalaatu bopp la men wante du ndigal lu jóge ci yàlla mu ne ko yow yonent yàlla bi fii de du wàccuwaay mu ne ko am na benn teen boo xam ne xam naa ko fii ci badar ndox ma neex na te bari na te du jeex nanu dem tabax benn mbalka ci wetu teen bi buñ ko ba mu fees ak ndox su ko defee teen yi fi nekk yépp ñu fatt leen ba bu yéeféer yi ñëwee duñu am ndox mu ñu naan ñàkk ndox ci xare defet bu rëy la mu ne ko kon nag noonu dem occupé teen boobu su ko defee léegi saa suñu bëggee ndox rek danañu mën a tànk naan ñu bëggee jàpp jàpp ñu bëggee sangu sangu nga xam dañuy xeex di naan mu ne ko wante fii nag buñ fi nekkee ah foog naa ne yéefar yi mën nañ ñoo bu ñu njëkkee ca teen boobu du baax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xalaatam bi mu ko rafetloo nag loolu la alquran di junju ne wa shawirhum fil amr yonent bi mosul nekk dictateur daf daan diisoog ay saxaabaam moo tax sayidna ali karamallahu wajhahu daan wax ne al istishaara aynul hidaaya nee na jëmmi njub moo di diisoo nee na ku bëgg a jub da diisoo yàlla wax na ci alquran ak yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko deel diisoog ñoom boo dee duggati ci mbir te du wax yu ñu ci diisoog say saxaaba ndax am na ci ñu rafet xalaat loolu itam day wan rek ne bépp njiit boo xam ne bëgg ngaa jubal boo dul diisoo sa dara du jub ndax yonent bi moom la yàlla doon waxal wante nag daan na diisoo te itam yàlla digal na ko ne ko del diisoo kon nit mënul am mat gu ëpp matuk yonent bi sallallahu alayhi wasallam te yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam li muy mat mat yépp yàlla digaloon na ko pour muy diisoo moo tax ولحرص المسلمين على على سلامة نبيهم قال سعد بن معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه من خير بجلدني خير كي مجوك ينتبه صلى الله عليه وسلم دربن كوالال أك جفل بنيو أم تموم تخون صحابي بمكبوب وخ سعد بن معاذ وخناك ينتبه صلى الله عليه وسلم نكو ala nabni laka arishan takunu fii mu ne ko xanaa yow soppe yàlla bi duñu la wutal benn xayma benn espèce su mbaar benn espèce su néeg boo xam ne ci ngay ndugg ndax yow bu ñu sañoon dara du la laal daal bu ñu sañoon ñun ñëpp mën nañoo dee waaye yow dundal ndax ci sa dund ci la diine di jëme kow ci la diine di dunde ci la kàddu yàlla gi di yëkkati ko kon nga gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku gëm yàlla daf la war a gënal sa bopp ndax saxaaba ya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas na ko wax Seydina Omar ndax dafa wax ak Seydina Omar ne ko maa ak sa bopp ak sa wayjur ku la gënal gëm naa yàlla gëm naa la wante nag sama bopp moom ma la gënal samay wayjur moom la gënal yonent bi nag ne ko sa ngëm des na Omar dem ba jikki delluwaat ne ko man seet naa ba seet wante yaa ma gënal sama ñaari wayjur yonent bi ne ko ah ba léegi des na de Seydina Omar demaat ba mu yàgg mu dellu si ne ko nag seet naa ba seet ndax Omar ku dëggu la woon lu nekkul ci moom rek du ko wax te lu mu wax rek dëgg la ci moom mu ne ko seet naa ba seet wante yaa ma gënal sama ñaari wéyjur yaa ma gënal sama bopp foo nar a deewee yàlla na fa deewee man te nga dund yonent bi ne ko waaw yaa ngi soog gëm nag moo tax ngëm googu yonent bi junj foofu moo feeñoon ci saxaaba ya moo taxoon saxaabi bi di Saad ibnu Muaz ne ko ala nabni laka arishan takunu fii gannaaw ba ñu tabaxee maanaam bañ ko defaralee espèce su néeg boobu nee nan Saad ibnu Muaz moo doon taxaw ci bunt ba yor ngànnaayam di ko garde yonent bi sallallahu alayhi gannaaw bi ñu defaree arish boobu ba noppi moom dem na ci barab bi nga xamante ni fa la ñuy xare ba mu fa demee itam am na lu mu def ndax dafa ñëw def miracle bu yéeme saxaaba yépp di ko xool muy joxañ barab barab naan diw de fii lañu koy rayee abu jahlin fii lañu koy rayee di tudd yéeféer yi umayya fii lañu koy rayee utba tubnu rabia fii lañu koy rayee shayba fii la ñu koy rey ku ci nekk rek ci wu màkk yi tudd na ni barab sàngam ci ngay dee te nu mu ko waxee woon noonu la amee yéefir bu ne barab ba yonent bi joxoñoon ne fañ lay foofu lañ lay reye fa leen la reyee loolu ba tey rek yéefir yaa ngay ñëw ndax seen yoon wa dafa diis ndax taw baa ko yàq te taw bi itam arrangé jullit ñi lool looloo tax itam jullit ñi daal di gaaw lool yegg si badafaru, ba defaru waaw sakk teen yépp dese benn teen bu nga xam ne ci la ñuy naan yonent bi itam joxoñ leen barab yi nga xamante ni ci la yéefar yi di daan bi sallallahu wasallam taxaw defar sàppe yi defar sàppe si ñu bënti leen defar leen defar bu rafet daal di delluwaat nag ca enricham boobu ñu ko defaral daal di dugg ci biir sayidna abu bakrin topp ya ko wax neen ni loolu nag mu ngi ak ajjuma fukki fan ak juróom ñaar ci weeru koor ñii ne fukki fan ak juróom ñett ci weeru koor ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam drapeau l'islam ba mu ngi ko joxoon sahabi bu ñuy wax ibn umayr moom la ko joxoon joxoñ ko benn barab ne ko nag taxawal foofu mu dem taxaw fa yonent bi sallallahu alayhi taxaw na di xool sàppe si wante waxtu woowu wax nañ ne ni mu taxawee mu ngi taxaw jublu soowu won jant bi ginnaaw loolu daf lay wan ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, ku amoon stratégie de guerre la ndax jàkkaarloog jant bi jant bi daf lay gêner ndax waxtu woowu dafa nekkoon waxtu wi nga xam ne eh, ci jamonoy suba la ay waxtu midi une yooyu nga xamante ni waxtu suba boobu nga xamante ni ay dix heures onze heures nga xam ne jant bi daf leen di féete gannaaw te jant bi day tàng yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ñu ko waxe woon rek yàlla mayoon la ak ñaw ci wàllu xare wante itam daan na déglu saxaaba ya yonent bi sallallahu alayhi comme ni ñu ko waxe woon ci ni mu doon euh, defaree sàppe si ak itam jublu gi nga xamante ni jublu na ko sowu jant bi wan ko gannaaw wax ne moom yonent bi sallallahu wa sallam mu ngi nekke bil udwati chamiya yéeféer yi nekk bil udwatil yamaniya kon yonent bi moo won jant bi gannaaw ñii yéeféer yi dëgmal jant bi wante am na xew-xew bu am ci bi yonent bi di defar sàppe si ndax bi muy ranger li nit ñi di defar sa si di wane ni taxaw euh, ni soldat yi wara taxawé amna ben sahabi bu ñu wax sawad sawad bi yonent bi ñëwee ba ci mom di ko dafa bayyi ba sa si jub mu dëngal sa si xawa avancer ci kanam yonent bi mu ngi yoroon espèce su bant ntu xala moom la bant fit bu mu yoroon wante e, amul woon ñaw ko amul dara bant bu yem la nii rek mu téye ko moom la doon defaree sàppe si bant boobu nag la laal sawaat moomu nekkoo ko yow sawaat istawi jubal ndax yaa tax raam bi dëng laal bi ko bant bi laal nag tax sawaat ne ko aw jaxtani yaa rasulallah mu ne ko gaañ nga ma yow yonent yàlla bi ndax jam nga ma sa bant bi mu ne ko nag walladi baasaka bil xaq maa ngi giñ ci buur bi nga xam ne moo la yónni ci dëgg damay fayu gaañ bi nga xamante ni gaañ nga ma ko ab jullit ka kat yonent bi laal ko bant mu ne day fayu yonent bi ne ko da ngay mu ne ko waaw mu ne ko fu ma la gaañ mu ne ko ci biir nga ma ko jam yonent bi sallallahu alayhi wa ca maandu ga ak daw tooñ bañ koo jege ci benn wàll tax mu yëkkati mbubbam ma ba biiram bu tedd ba feeñ sawaat daal di ñëw ba tolloog biir bi daal di koy fóon daal di akolaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi itam daal di jaaxle ndax wax dëgg yàlla loolu saxaabi bi def jaaxal na ko ndax ni jullit ñi amee cofeel ci yonent bi mu ne ko gaañ la ma damay fayu yonent bi yëkkati mbubb mu foon ko akolaat ko yonent bi ne ko ma xamalaka ala ma sanaat ne ko yow sawaat lii nga def lu la ci xiir mu ne ko xadara min amrillahi ma qad tara wa xashitu alqatla fa aradtu an akuna ahdi bika an an yamassaka jildi an yamassa jildi jildak mu ne ko li xewkat yaa ci teg sa bët comme ni ma ci tege sama bët ndax déggu xonq moo jàkkaarloog ñun ma ragal nag xare bi dama cee ragal a dee te itam am naa cofeel ci yow bëgg naa la sopp naa la ma bëgg nag sama mujjug dund la may fàttaliku mu ma cay neex mooy sama der ak sa der laalante kolaat la souvenir boobu rek moo tax ma def lii ma def ak cofeel gu ma am ci yow wante du dara yonent bi daal di bég xam ne saxaaba yépp ay soppe leen te itam bëgg nañ ko mbëggeel gu ëpp bu ñu bëgg ñoom seen bopp ndax saxaar bii bu ci nekk liiburoon nga pour ba a nekk jullit kon boo nekkee jullit itam libre nga ci bañ a sopp yonent waaye boo ko soppee itam loolu day wane rek ne ak jagle la bu leen yàlla defal ndax cofeel wàllu xol la gëm wàllu xol kon ku ko yàlla defal defal na la cër bu rëy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci waxtu woowu taxaw mu defar sàppe si ba saxa ba saxaaba yépp taxaw foofu la ben ngelaw up ngelaw lu fo am kenn ci sahaba yi ku ko wax ne ko ne ko inni ara rihan qad hajat min aala alwaadi yonent yàlla bi ñun kët dafa mel ni dama ji dégg benn ngelaw seen naa ngelaw luy ñëw daal waaye ngelaw li daal ngelaw lu yéeme la dafa mel ni mu ngi jóge ca xur wële dama foog ne daal ngelaw la lu yàlla yebal pour mu jàppale la ci xare bi kon nag yéegal ci kaw ñéegal ci xur wi balaa ngelaw lay agsi yonent bi ne ko déedéet ndax defar naa sàppe si ba noppi te itam samp naa sama drapeau ba noppi kon nag duma soppi taxawaay foofu nag la yonent bi sallallahu alayhi wa loxoom boroomam daal di ñaan daal di ñaan fas yéene xettaliku ci yàlla ne na ko yàlla jàppale moo tax bi mu ñaanee ba wacce loxom ci la ben ngelaw lu for upp ñu toga tuti benen ngelaw lu for bu for ba ñi ko njëkkoonu upp uppaat ñu toga tuti benen ngelaw uppaat bu gëna for ñaar yi uppoon ndeke ngelaw lu njëkk la jibril mo doon ñew ànd ak malaaka yu bari pour jàppale ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci xare bi ngelawu ñaareel la ndeke Mikaayil moo ñëw ànd ak yu bari ndeke moom itam ko yebal pour mu jàppale yonent bi sallallahu alayhi wa ci xare bi ndeke ngelawu ñetteel ba itam Israfil la moom itam yàllaa ko yebal pour mu ñëw jàppale si yonent bi sallallahu alayhi wa ci xare bi te kat gannaaw malaaka yooyu kenn ku ci nekk boot nga lu bari ci malaaka yoo xam ne sax bi ñu ñëwee ñoom jotuñoo xeex ñu àgg nag ci ay junniy junniy malaaka loolu borom bi subhanahu wa taala moom la nettali ci suuratul lanfaal ci aaya téeméer ak ñaar fukk ak juróom ak juróom ñaar ak téeméer ak ñaar fukk ak ñett waaw aaya téeméer ba ak ñaar fukk ak ñett ak aaya téeméer ba ak ñaar fukk ak juróom ñaar ci suuratul anfaal ñu ni yonent bi sallallahu wax nanu malaaka yooyu bi ñu ñëwee bég na ca lool ndax malaaka yi dañu yor jëmm nit te itam ña doon xare gis nañu malaaka ya waaye malaaka boo gis danga koy gis ci melokaanu nit koo xamoon moo di jullit bu nga xam ne sa mbokk la ndeke malaka yooyu fexe neen ba julit bu ci nekk ñu jël sa melokaan su ko defee nga foog ne nit a nekk ci sa wet di xeex ndeke malaaka la moom la yàlla wax ci alquran ni id yuuxi rabbuka ila almalaikati anni maakum wante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def na bu rëy lu jiitu xeex bi di am ndax dañu wax ne formé neneen taal jihaad moo gën moo gën a yomb formé soldat taal jihaad moo gën a yomb formé soldat ndax taal jihaad yomb na waaye fexe ba forme soldaar bu nga xam ni du jalgati du ëppal la ko yàlla sant rek ca xeex ba lay def looloo jafe moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xutba na daa di sant yàlla tagg ko daa di wax jullit ñi ne leen maa leen di ñaax ci li leen yàlla ñaax maa ngi leen di tere lépp loo xam ne yàlla tere na leen ko maa ngi leen di yëgal ne mbiru yàlla rëy na ba jéggi dayo yàlla di dafay digle dëgg te itam ku sopp dëgg la te itam dana faral di fay yiw ñooñ dëgg lu tax ndax daraja ju ñu am ci yàlla ak fonk gu leen yàlla fonk nee na itam nit ñi ñu ngi gënantee di gëna kawante itam ci dëgg maa leen di yëgal ne yéen a ànd ak yàlla te yàlla du fay kenn jëf lu dul ba jëf jooju danga caa jublu jëmmi yàlla rek kon xare bi bu njistal tax jàmbaar gi ngeen ci wane bu njistal tax na yàlla rekk tax muñ nag ñu ngi koy séentu ci jafe-jafe yi ak tartar yi wante nag ci jafe-jafe yek tartar yi ci la yalla di wuññee ñakkar ci la yalla itam di musale nit ki ci ñakkar ci ngeen di amé itam ak mucc ëlëk yowmal xiyam ndax mbolo mi bari na yéefir yi bari na seeni ngànnaay bari na na ngeen muñ yàlla boole na leen ak yonent bu nga xam ne mu ngeen di digal di leen tere di man mii nekk ci seen biir ngan la waaye na ngeen am kersa yàlla sëppu leen gis ci yéen lu jaaduwul kon defar leen seen comportement nammat leen seeni pas-pas na seen ngëm ci yàlla gën a dëgër ndax kat la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum merum yàlla kenn du ko yemaleeg merum mbindéef kon nag na ngeen góorgóorlu ba yàlla bañ leen a jéppi xool leen li leen yàlla diggal ci alquraanam ju tedd ji xool leen aayaam yu yi nga xamante ni moom la leen dëgërale di leen defale aayaam yooyu su ngeen ci jàppee da ngeen am ngërëmam da ngeen am itam payam kon nag feeñal leen ci taxawaay bu tar bi taxawaay bu ñang bi xare bu rëy bi feeñal leen ci ak njàmbaar gu nga xam ne da ngeen ci mën a amee yërmande yàlla ak njëgalam yàlla ke dig na ma te lim ma dig dëgg la maa leen di yëgal ne yàlla waxam dëgg la te mbugalam itam metti na te maa ngi leen di yëgal ne man ak yéen lu mu yàgg-yàgg rekk ci buur bu kawe ba la ñuy dellu ak lu àdduna neex-neex ak lu àdduna naqari naqari ci yàlla rek lañuy ñuy dellu kon nag ngi sàkko yiiru ci moom ngi sàkkoo ñoŋu ci moom ñu ngi sàkku itam ci moom mu aar ñu ñu ngi sàkku ndimbal ci moom wakkirlu nañu ci moom bàyyee nañ ko suñuy mbir ndax ci moom rek lañuy mujj kon yal na ma yàlla jéggal yal na yàlla jéggal way gëm ñi loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax mu di discours gu rëy lu jiitu xare bi di am ñaanee ba noppi ci la nag yéeféer si yéeféer yi di soog a agsi kon ñoom ñiitoo nanu yéeféer yi ab diir ci badar foofu nag wax nanu ne yéeféer bi njëkk a tëll njëkk a génn ci xare bi jóge Quraysh jóge Makka di waa Quraysh mooy Zamaatu bnul Aswad moo njëkk a génn ànd ak doomam bi mu ñëwee itam la mu doon njëkk a xool moo di fu ñu war a placé wu fu ñu war a campé fekk yonent bi jiitu na leen ca barab ba nga xam ne moo gënoon a placé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan na wax ne allahumma innaka anzalta alayya alkitab wa amartani bilqitaal wa waadtani ixda altaifatayn wa anta la tuxlifu almiaad اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك فنصرك الذي وعدتني اللهم أهلكهم الغداة يعني النبي صلى الله عليه وسلم نانا يو يال يو يال يا واتشي تيربي كمان مودي القرآن ندي قلما يا مدك إتم بني تنياري كوريليه te kat yow doo fuuse rendez sallam yow yàlla yow yàlla yaa wàccee bi ci man mu di alquran nga digal ma ma xeex itam benn ci ñaari kuréel yi te kat yow doo fausse rendez yàlla waa Màkka ngi nii ñëw nanu di tiitaru noonu la noonu sa yonent noonu sa diine fen loo sab yonent man nag maa ngi lay ñaan ndimbal la ma digoon te itam maa ngi lay ñaan tey jii seen jàmbaar yëpp alak la loolu moo di ñaan gi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ñaan ci barab bi ba tey rek jàmmarloo ba tey rek euh, roofaloo amagul wante mbokk yi xam naa dangeen ñu jéggal nag ndax dëgg yàlla waxtu wi ñu ñuy signalé ne jeex na mbokk yi ñu nekkoon ak yéen ci xare badar mu di gazwatu badrinil kubra ci waxtaan wi ñu génn gisoon nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa àndoon na ak waa Makka maanaa àndoon na ak waa Medina dox bi metti woon lool ci ñoom wante ba yàlla nammee ci ñoom ñu noppalu daf leen roof ak ngëmmentu ñu nelaw nelaw yu xóot noppalu lool ca nelaw ya gannaaw si gi yàlla wàcce na taw ndax doon leen jàmmat mar ak ndox mu ñu sangoo taw boobu de xéwal ci ñoom taxitam ñu sangu ca ndox ma naan ca ñi ca ameewoon woon janaaba sangu ca taxoon na itam wàccuk taw bi neexal na yoon wi ba seen fas yi mën a dox dox bu baax ba loolu mooy sabab jullit ñi jiitu yéeféer ya ca barab ba di badar wax nanu ne taw bi ni mu nekkee yërmande ci jullit ñi noonu la nekkee itam mu musiba ca yéeféer ya ndax dafa ngirool seen yoon ya yonent bi sallallahu alayhi comme ni ñu ko waxee woon moo jiitu ci wante am na saxaabi yi bu ko wax ne ko nanu fexe ba dem ci mu joxoñ ko benn barab ci benn teen bu nga xam ne noonu mën a root ca ndox ma sakk teen ya ci des yëpp nga xamante ni nag ñoom bu ñu ñëwee danañu mën a xeex ba pare di naan ndax mar eh, defet la ci xare ndax kay xare soldaar bi bu maree dootul mën a xare wante wax nañ ne yéeféer yi ñëw nanu bi ñu ñëwee ñoom itam campé nanu ci biir waxtaan wi waxoon nañ leen ki nga xamante ni moo songoon yonent bi sallallahu alayhi doon foon yaram wi mooy ki waxoon yonent bi ne ko danga ma gaañ yonent bi ne ko fayul te lam ci jublu moo di ne comme rafet na njortu ci ne mën na am bakkanam des ci xare bi mu ne balaa dee daal na yaramam jonjoog yaramu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu itam doon tegtal bu rëy ci yonent bi bu koy wan ne ko ñi mu àndal sopp nañu ko bëgg nañu ko ñu ne nag jamono boobu nga xamante ni ñaari soldaar yi jàmmaarloo nañu war a xeex yonent bi sallallahu alayhi def na xutba bu rëy ci biir xutba ba ñaax na ci nag jullit ñi wan leen ne xeex a leen yëkkati te xeex bi ngeen di def moom lañuy tuddee jihaad jaamu yàlla bu rëy la benn jaamu yàlla féetewu ko kaw kon na ngeen ko def ci sellal def ko ci muñ yonent bi sallallahu bu masaana jiital euh, euh, soldaar yi pour ñuy xeex yi dana def discours aussi wax ne bu ñu dagg garab bu ñu rey mag bu ñu rey boroom xam-xam bu ñu rey jigéen bu ñu dugg itam ci dëkk rey ña fa nekk te ñooñu dara jotewuñu ak ñoom ci wàllu xeex li mu digle daal moo di ne nañu xeex ak soldaar yi nga xamante ni ñoo jóg xeex si waaw loolu la ñuy wax ne eh, taal jihaad moo gën a yomb former soldat bi ba mu am discipline def la ko war ci xeex ba te du ci ëppal lu ca def loo xamante ni bokku ci waaw kon daal jigéen ñi waruñu leen a rey ci xare boroom xam-xam waruñu ko rey ndax xam-xam ba dañu koy jëriñoo mag itam amul kàttanu xeex waaw kon soldaar bi xeex rek lañu war a rey waaw xeex itam mere ca xeex ba ñëw songub dëkk yàqaati dëkk ba daaneel néeg ya rey bay yaa ya fa nekk loolu lépp yàq la lislaam daf ko bañ moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan dànkaafu ay soldaaram ñu ne bi ñu jàkkaarloo nag nee na amoon na benn kuréel bu jóge ci yéeféer yi daal ñëw song si malka moom nga xamante ni moom la jullit ñi duy ndox ba mu fees ñoom mar nanu mar gu tar ñëw di naan ca mbalka ma bi leen jullit ñi wuutee nar leen a rey yonent bi daf ne bàyyi leen leen ñu naan ndeke naan googu junj la bu yonent bi doon junj ne ku ca naan rek dee ña ca naan ñëpp dañoo mujj faatu ba mu des xakim ibnu xidaam moom rek moo ca faatuwul noonu ñu taxawee jàmmaarloo am na benn saxaabi benn yéeféer boo xam ne yéeféer yee ko yebal ne ko demal nga xool jullit ñi naka la ñu taxawee ñaata fas lañu ñaata giléem lañu seen mbooloo naka la toll waaw ndax itam jaadu nañu xeex ak ñoom wala dañoo war a wàññeeku gis nga yéeféer yi ni ñu muusee ñu yebal waa ju ñuy wax Umayr ibnu Wahb bi mu ñëwee nee na leen jullit ñi ñetti téeméer leen ak fukk ak ñett nee itam ñaari fas la ñu am juróom-ñaar fukki géléem la ñu yor mu ne leen wante yaa maachara Quraysh mu ne yéen ngir Quraysh dellu leen ngeen dellu Màkka bañ a xeex ndax kat soldaar yi ma gis jullit ñi ma gis seen géléem yi ñi ñu suuf ay soldaar la nuyu nga xam ne ku jàmmaar la ak ñoom ñu rey la ndax kenn ku ci nekk yaa ngi fees ak tooke ñii ma gis de seen lim néew na wante seen kattan bari na kon nag suñu bëggee mucc nan leen fi bàyyi wacc leen fi ni yàkk bu naqari dellu màkk sinon bu ñu leen attaqué danañ ñu jeexal kenn par kenn ndax kenn ku nekk ci ñoom am na njàmbaaru rey tëral fukki ponkal ci ñun mu ne xanaa gisula leen ñu ngi mel ni ay muuma ndax mer mu tar ñu ngi mel ni ay muuma ndax gëm gu ñu gëm yonent bi ala tara ala tarawnahum khurusan la yatakallamuun yatalammaduuna talamud al afaa'i mu ne xanaa gis leen leen ñu ngi mel ni ay muuma te itam ñu ngi melasti ku mel ni jaani ñàngoor te giñ naa ci yàlla ne amul kenn ci ñun kuy rey ci ñoom te duñu rey ci ñun itam ay jàmbaar lañu nii ma leen gise daal sama fit mayuma pour daal ñu xeex ak ñoom Umayr ibnul Wahb moom loolu la wax ñu yebalaat keneen mu di Aba Salama ne ko demal nga xool ndax kii wax ak ñun daal ab buqat la bi mu ñëwee moom itam daf leen wax ne leen raaytu qawman laa yuriduuna arrujua ila ahlihim mu ne ah, man de ñii mu gis dund ak dee la nu yemale xam naa ne sax kenn ku ci ne bind nga bàyyi bàyyee sa njaboot defar sa gannaaw wane ne dootoo dellu dootoo dellu si seen bët yaa ngi bleu ndax mer mu tar kon nag li ma fi gis moo di ne nanu dellu suñu delluwul danañ ñu gañe moo tax Hakim ibnu Xidaam mi di kilifa ci Quraysh bi mu déggee ñaari espion yooyu ñu yebaloon mu di Umayr ibnu Wahb ak Aba Salama ci la Hakim ibnu daa di جيسوك nag waa Quraysh ne leen nan nanu dellu ci la ñëw nag ci Utbatu bnu Rabia ne ko walid إنك كبير قريش والمطاع فيها هل لك أن تذكر بخير إلى آخر الدهر فقال وما ذاك يا حكيم بن حذام قال ترجع بالناس ñu ni Utbatu bnu Rabia Xakiim bnu Xidaam dafa ñëw ci moom ne ko yow Abal Walid parce que Abal Walid moo doon dàkkantalam mu ne ko yow yaay magu Quraysh te itam kilifa nga boo waxee dañuñu la dégg xanaa bëgguloo am jaloore ju rëy taggu wa rëy woo xamante ni kenn dootu ko fàtte ba ba buftu ba di wal mu ne ko loolu lan la yaa Xakiim bnu Xidaam mu ne ko xanaa nga delloo soldaar si màkk ndax jullit ñi ma gis buñu jamar lok ñom daneen ñu rey Utbatu bnu rabi'a daal di taxaw khutba khutba bu reey daal di wax ne ya ma'shar quraish wallahi ma tasna'una shay'an an an tulqu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam muni yeen جيل quraish giñ naa ci yàlla ne defu leen lu ëpp musiba jàmmaarloo Muhammad xeex ak moom mu ne ndax ay mbokki kese ñoo daje kenn ku ne ci yéen soo jàkkaarloowul ak sa jur yaa ngi jàkkaarloo ko bokkal ndey ak baay wala yaa ngi jàkkaarloog sa jarbaat wala yaa ngi jàkkaarloog sa nijaay kon ay mbokki kese ñooy xeex te itam bu ñu jàkkaarloo ba roofaloo ba xeex bu ñu noppee danga gis ku rey doomu baayam wala ku rey doomu ndeyam wala ku rey jarbaatam wala ku rey baayu boppam kon nag dellu leen makk te ngeen bàyyi muhammad bàyyee ko ki mbiram mu continuer diineem xëy na du ñàkk ëllëg ci arab yi dina am ku nga xam ni dana leen ko dumaal wante bu ngeen ko bëggee fajal seen bopp dafay nekk musiba bu rëy ndax ay mbokki kese ñooy xeex ay mbokki kese ñooy rayante loolu bi mu ko waxee daf leen wax nag ne gàcce bu ci mënti am nen ma ko teg man obatum nu rabiha kon nag nanu dellu waaye bu ñu xeex foofu la ñu bari wax ne Utba daal dafa ragal ndax yéefir bu mag bu bon bi ñuy wax Aba Jahl bi mu ko déggee wax jooju dafa mer bi mu ñu meree daal di ñëw ci mbooloo mi ne leen ñun de ay arab lañu bokk ci giir Quraysh bi ay jàmbaar suñu ñëwé ba déllu wat loolu dana nekk xas wu reey ci ñun dana nekk gàcc gu reey ci ñun daal di xëcc benn waay bu ñuy wax amir ibn al-hadrami mi nga xamante ni moom lañu rayoon frère ca sëriyatu abdu abdullah ibnu jahsh mu di omar ibn al-hadrami te ñu rayoon ko ci barab bu ñuy wax nax la moom la génnee ne ko yuuxul ndax arab dafa gëmoon li ñuy tuddee peru dima peru dima mooy arab boo masaana tuur deretu mbokkam loolu daf koy def ay wu rëy fokk mbokkam moomu ñu tuur deretam ñoom danañu ko fayul looloo taxoon nag ci politique gu Abu Jahl mu ne Amir ibn al-Hadrami génnal nga jooy sa mbokk ma sa mbokk ma ñu rey te jullit ñee ko rey mu daal di génn nag taxaw ci kanamu yéeféer yi daal di yuuxu ne waa amra waa amra ba mu ko yuuxoo nag xol yëpp daal di sot xol yëpp daal di préparé waat na ma xeex ak yonent bi sallallahu alayhi ñu guuxaat beneen mer mu nga xam ne Abu Jahlin moo ko def ci ñoom foofu nag la jullit ñi nag def li ñuy tuddee munaawasha munaawasha mooy ñaari soldaar ñaari armée yu jàkkaarloo di wax te xeex amagul ñu ne bi ñuy def munaawasha am na benn soldaar bu bu génnee ci yéeféer yi daal di ne moom daal dana génn pour dem ca maana mbalka mi nga xamante ni moom la jullit ñi defar pour dem naan ca gannaaw ba nga xamante ni yëpp am na wante lu jiitu kooku di dem am Omar ibnul Xataab amoon na benn jaam ci munawasha bi bi mu génnee amir mi nga xamante ni moo di amir ibnu alxadrami moo ko rey kon badar mën nañu wax ne yéeféer yaa njëkk rey kañ fa njëkk a rey jaam la ci omar ibnu alxataab amir mi nga xamante ni moom la ñu reyoon frère ci sariyatu abdullah ibnu jahsh moo ko rey ci saasi ñu ne foofu nag ci diggante boobu ñuy defee munaawasha di wax di joxalante ay kàddu foofu nag yonent bi sallallahu alayhi mu ci biir arisham te moo di mbaar mi ñu ko defaral saxaaba yëpp ñu ngi sàppe taxaw di déglu ndigalam diggante boobu nag nelaw këf na ko fi moom yonent bi sallallahu alayhi bi ko nelaw këfee nag mu gam-gam le nelaw tuuti daa di yeewu ndax moom bët yeey nelaw waaye xol ba daawul nelaw foofu nag la ko yàlla wan nag yéeféer yi ci biir nelawam ci gént mu wan ko yéeféer yi tuuti lool ci nim leen gisee ci gént gi nee tuutiwaay boobu nag bi mu yeewoo lim ko firee moo di ne tuuti gi mu gis soldaar yi yéefir yi tuuti ko loolu moo koy wan ne ko amuñu benn njariñ loolu moo koy wan ne itam bu ñu xareek ñoom danañu gañe loolu nag yonent bi daal di jóg génn ci arish bi daal di ñëw nag wax ko saxaaba yi ne leen ah, yàlla won na ma leen léegi bi ma nelaw kafe yàlla wan na ma leen wante nag ñoom tuuti nanu lool ni ma leen gisee loolu nag li muy wundu moo di ne eh, bari nanu waaye amuñu kàttan waaw beñe la rek bu ñu bu gonflé wu da ngay foog ni ci ci biir dëll na fekk dara nekku ci moo tax mu ne Seydina Abu Bakrin moo nekkoon ak moom ci biir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di génn wax ak soldaar yi tàllal loxoom nag daal di ñaan yàlla ne ko allahumma inni anshaduk ahdaka wa waadaka allahumma in tuhlik hadihi al asabata al yawm fala tu'bad mu ne ko yow sama yàlla yow sama boroom wëllëree gi ma séq ak yow ak dig ba ma digoon maa ngi lay ñaan ñii kat tuuti nanu ñetti téeméer yi ak fukk ñetti tuuti nañu tuuti nañu lool wante ñooy sa ñooy sa njaboot bu ñu alkoon nag boo leen seetaanee ba ñu faatu dootoo amati ku la jaamu ci kaw suuf foofu nag am na ku ñuy wax aswad ibnu abdil asad moom ab yéeféer la mooy ki ma doon junj léegi moom moo génn ci rangu yéeféer yi rek daal di wax ne uaahidullaha la ashrabanna min xawdihim aw la ahdimannahu aw la amutunna duuna mu ne fokk ma dem naan ci seen mbalka ma wala ma mabb ko wala ma dee wuute ko bi mu jógee armée wu nag wuti mbalka ma ne daf cey naani Hamzatu bnu Abdil Muttalib mi nga xam ne bàyyi la ci yonent bi sallallahu alayhi wa di jàmbaar jàmbaar yi ba mu ko gisee muy ñëw daf ne kii daf ñu yàpp bi ñëwee jublu si ca mbalka ma ko kar wàññi ko mu bañ Hamza dóor ko benn tànk bi damm muy watatu ba agsi ci mbalka mi naan ci fa la ko Hamza fekk daal di koy rey kon gannaaw ba ñu reyee jaamu Omar ibn al ci jullit ñi yéeféer bañ ca teg moo di aswatu ibn abdil asad foofu nag la ñu def li ñuy tuddee al mubaaraza mubaaraza nag moo di leewaatoo foofu nag la eh, Utbatu ibn Rabia mi nga xam ne moo jiite woon xale bi di magu Quraysh moo génn daal di wax yëkkati kàddoom ca kaw ne yow yonent bi waaw ñoom sax daawuñu ko woowee yonent bi yow Muhammad lañ ko doon wax ne ko yaa Muhammad génneel ñett na ñett génn ci yéen ñett génn ci ñun ñu léewatoo mu am ñu génn ku ñuy wax moo génn ak ku ñuy wax Muaz ak Abdullah ibnu Rawaha wante ñoom waa Medina leen ci waa Ansaar la nu bokk mi ñu génnee Utbatu ibnu Rabia daf leen laaj ne leen man antum yéenay ñan ñu ne ko ñun waa Medina lañu Utbatu ibnu Rabia ne ne ne leen soxlawuma leen ñi ñu soxla moo di ay ñu bokk ci giir Quraysh suñuy mbokk lanu soxla wante yéen soxlawuñu leen daa di wax yonent bi yu xawaat baatam ca kaw ne ko génneel ñi nga fonk ñun ñu génnee ñu ñu fonk ñu jàmmaar jàmmaarloo foofu nag ci la yonent bi sallallahu alayhi yebale nag Hamza ne ko jàmmaar lool ak Shayba Shayba tubnu Rabia ci la yebal nag Ali ibnu Abi Talib boole ko jàkkaarlool ak walid ci la yebale nak ubayda tubnul xaarit ni ko na jàkkaarloo ko ubba ibn rabia le wato leewaatoo boobu le wato bu métti ndax xamdatu bnu abdil mutalib ci saa si la tëral cheybatu ibn rabia ñu dara sina ali mi nga xamanteni ñu ngi koy dàkkantalee xaydara te xaydara moo di gayndeek njëloor gaynde goo xam ne kenn du ko suuru moom itam ci ay minutes yu néew tëral na walit ci suuf mu des Utbatu bnu Rabia ak Ubaydatu bnul ñaari mag lañu woon ñoom ñaar nag bi ñu jàmmaarloo ku ne jam na sa morom wante euh, sayid sayiduna Hamza ak Ali ibnu Abi Talib ñoo gaawantu daal di ñëw yëkkati ci bnu al-Xaaris daal di jekkale nag Utbatu bnu Rabia moo tax e, ci mubaaraza boobu nga xamante ni moo di leewato boobu ñu fi wax léegi jullit ñi gañ nanu ndax yéeféer ya ñett ña ñu yebaloon ñoom ñëpp faatu nanu Utbatu bnu Rabia mi am na doomam ju nga xamante ni jullit la woon moom ca rangu jullit ña gis nañu tëral baayam rey ko wante itam ngëm gi nekk ci moom moo tax bu ñu jaawale nag yéeféer ak jullit jullit soo dee jullit su lislaam dee xare ba ñu rey ci sa baay te mu di yéeféer kooku dara nekku ci waaye nag ñaari jullit nag bu sa baay dee jullit nag sañuloo ko bañ sañuloo ko noonu waaw sañu loo ko bañ sañu ko noonu moo tax ñu ne Iblis fekke woon na xare boobu moom Iblis bokkoon na ci ñi doon dugal waa mag pour ñu xeex saa bu ñu demee ba nar a découragé ci xeex bi ibliis daan na soppali ku jëmm yor jëmm Suraqatu bnu Malik waaw raxatub bnu Malik bnu Joxum moom la daan jël jëmmam di ruux yéeféer yi nag pour ñu xare moo tax moom ibliis daan leen wax daan na wax ne laa xaaliba lahum min wax na leen wax ne kenn mënu leen ci nit ñi yéen a fi ëpp doo yéen a fi ëpp doole yéen fi mën kon nag bu leen bu xat ñu bi nga xamante ni yàlla yebal na malaaka yooyu pour ñu ñëw ndax wax nañu ne malaaka yi bu ñu ñëwul woon xare bi dana metti lool ci jullit yi ndax ñetti téeméeri soldaar ak fukk ak ñett ak junniy soldaar ah dañ ne ñaar dañ ne eh, nu mu tooti ñaar du du du ñett du bëre daaw ñaara mën kenn te ñett du bëre te jullit ñi leen yëfee yi ëppee bari na waaye ñaan gi yonent bi tax na yàlla wàcceel ko soldaar yu bari soldaar yooyu nag ay malaaka lanu loolu lanu wax ni bi yonent bi toogee ba nga xamante ni songoo rekk ci des nee na am na ngelaw lu for lu upp nekkete boobu yonent yàlla jibril moo doon ñëw ànd ak ay junni ci malaaka ñu jékki-jékki beneen ngelaw upp ndeke boobu mikaali mikail moo doon ñëw moom itam ànd ak malaaka yu bari mu jékki-jékki beneen ngelaw upp ndeke boobu israfil moo doon ñëw moom itam ànd ak malaaka yu bari loolu la yàlla di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko iz taqulu lil muminina lil muminina alan yafiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin min al malaika تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم, أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منذل منذل منذلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين yonent bi yàlla ngi نيكو متي ون ko metti fu ne nga fay xool di tàllal sa loxo di ma ñaan man nag maa la jox lu tollook ñetti junni malaaka yoo xam ne maa leen wàcce man yàlla maa leen wàcce ngir ne su ngeen muñee ngir ne itam su ngeen ragalee yàlla ba bañ a daw man yàlla danaa leen dolliwaat yeneen juróomi junniy malaaka yoo xamante ni su ngeen leen gisee nañuy xeexee dangeen xam ne ñee ay malaaka lañu wante duñu ay nit moo tax am na benn waay boo xamante ni moo nettali wante ñu ngi jële nettali bi ci Abdullah ibnu Abbas nee na waa jooju mu ngi bokk ci Bani Gafaar mu ne mu ne ñëwoon na keroog bi su Badar ànd ak benn doomu bay tëxam ñu yëg ci ko benn montagne